ni ma mel yéen a ko daal ci Sénégal dëkku gaynde njaay mooy sunu gaal. salaamaaleykum papa. aleykum salaam wa rahmatulah. Euh, gannaaw bañ la nuyoo ba pare tur bi naka la. Moustapha Cissé. Moustapha nan nga gisee ak carburant bu Sénégal. carburant xanaa seer rek comme ñoom waxoon nañu ne chauffeur nord talon zéro euh, non non kii comme bu waxee loolu wax dëgg yàlla. té ñom tolloon nañ bañ togaat yalla mën nañu mën la def ñu dimbali ñu wañul ñu gasoal bi ci nu gëna gën a yéwénee da nga bëgg ñu gëna wañi wàññiwaat. waaw nuñ ko gëna wañi dal mu gëna baax ñun wa dal mën diñ ci mëna gis suñu bop waaye bu amul mom day met rek. day met waaw. ka mujj gi lan waaw xana ñi sant leen te leen gërëm rek xamni li mom mm, li fi nekk mom yep dañ ko teg ci loxol suñu borom bi rek waaw xam ne lu yàlla moom lu mu def rek xëy na daa nekk lu gën waaw incha allah. salaamaaleykum. maaleykum salaam. nan nga def. maa ngi fi rek. yow mbokk chauffeur nga ñu ngi la fekk yaa ngi toog ci sa biir oto. waaw. waaw ku ne chauffeur ne carburant ndax na ndax carburant moom <laughs> ku ne oto ne carburant lan nga gisee carburant bi nga xamante ne mooy carburant bu Sénégal est-ce que gis nga ci sa bopp. carburant bi moom comme li sama nijaay wax rek bi moom comme gars yi nañ dañ ko jéem wàññi bu baax. dañ leen digoon ni dañ koy wàññi. waaw waaw loolu la ñu waxoon chauffeur yi quoi comme léegi waa falu waat na daal na fexe wàññi carburant bi waaw. carburant Sénégal amul benn problème du yàq soo ko jënd mu yàq sa oto wala genre. non man nag sel laa taamu di solee sama gasoil mais wax dëgg neex yàlla moom sel moom gis nañ ci suñu bopp waaw waaw.